أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw buñ sante buur subhanahu wa taala ñaan ko mu ñu julli ñu ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk jullit yépp ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, ñu ngi nekkoon ci tafsirul qur'an bi wala ta'wilul qur'an nekk ci tay juróom ñetteelu saar ci alqur'an ñu tudde ko suratul anfal suratul anfal moom madaniya la Madina la wàcce ñu tudde ko le butin muy teranga ji nga xam ne mooy jóge ci xare yi loolu nag kéemaan la parce que lépp yàlla ba mu dalee yónni yonent yi yonent yi mu ci xeexloo sax bariwul waaye même ñi ci xeex bu ñu masaane xeex ba gañe seeni nit léegi yàlla daf leen digal butin yëpp ñu dajale ko butin mooy alal ji nga xam ne yéefari biñ dawee bàyyi nañ ko ci ay jaas yi ak xaalis ak ay fas ay gëléem ay xar ay nangam ay teg ay mubi kom yooyu ñu dajale ko yonent bi nag daf ko daan dajale teg ko ci benn benn montagne buñ ko ci juugee nag asam euh, yàlla mooy wàcc benn maanaam safara bu jógee ci asamaan mu lakk ko ba mu jeex xam nga kon ñooñu amuñu woon problème mu séddoo loolu ndax butin bi yàlla da ko daan lakk léegi nag xeetu yonent yàlla Muhammad pour la première fois ñoom jotuñoo woon am yonent avant xamuñu woon affaire bi itam nu muy demee attaquement bi jëkk bi ñu jëkk a def moo di Abdullah ibnu Jahsh bali nga xam ne yàlla tudd na ko ci baqara muy sëriya bi mu defoon da mu ñëwee indi na butin bu bari mais butin bi yonent bi daf koo teg ab diir ba problème yi ci am yëpp après da ko séddale ñooñu ñu lekk ko ay gëléem mag ay yu mel beneen bu ñaareel bi premier attaquement bi ñu fi gën a amaat mooy bu officiel mooy xaswatu badr saar bi saar bi nag xaswatu badr moo ko tax a wàcc nga xam ne tabaarakallahu ci gàtt gannaaw gàttaay gi rek la gàddaay gi la léegi jullit yi ñoo doon dabu ji Abu Sufyan pour jël alal ji mu yore ndax ñoom ñoo ko moom parce que seen alal la waa Màkka confisqué yonent bi nag euh, bi mu demee muy badru ni suura wala ula ñu nekk Abu Sufyan jot na rëcc mu yónnee ay ndaw nag ne leen buy retourné rek ngeen wax ma euh, ñu yónnee ko ndaw ne Abu Sufyan mu ngi ci yoon bi di retourné Abu Sufyan bu jugee Makka ak euh, commerçant yi moom day jaar ci xàll xàll côté ouest bu Madinatu Munawwara léegi rombaleen dem Syrie buy dellu sewaat itam ci xàll wu mag wow lay jaar yonent mi nag comme soriwul foofu mu woolu julit yi ne leen wax nañ ne ma Abu Sufyan mu ngi ñibbisi kon nañ dem koj ji ko bañ demee nag di ko koj ji en guise de lan lañ lu leen lu taxoon a jóg butin du dëgg loolu lañ bëggoon faf Abu Sufyan def ay pexe moom ba déjoué teggi dem ñibbi màkk mais fekkoon na mu yónni dam-dam euh, alxifaar yi ne ko dawal ci waa màkk ne leen nañu xettali seen njaay mi mu dem wax ko waa màkk yuuxu euh, xotti ay yéreem deretal boppam ba ñu mu mel ni daal kuñ doon dur xam naa ku joŋe la Abu Sufyaan nag dégg ko dajale dignitaire u màkk yépp ak euh, conseil yi ak député yi def nag benn armée bu mag a mag a mag imposé ku mënta dem itam cotiser ñu bari nag cotiser alal ju baree baree baree bari ñenn ñi sax cotiser ba pare ànd ak moom ñëw dignitaires yi nag mu ut ci fukki mag kenn ku nekk mu ne la mu imposer la la euh, chaque jour kenn ku ne ci yéen yaay yor ration wu armée bi euh, moom mu njëkk a génne fukki yu mag ñu rendi ko ci saasi biñ ko lojee defar ko fukki gëléem xam nga ni yàppam tollu ñu koy bis di lekk ko nan mu mu mu ve mu paye sàngara gi ñu ñu lekk di naan tabaarakallaaw ba ci waxin lëndi jeex mu ne góor ubay maanaam yow defal kooku deuxième jour bi ne du ma yées abu jëleen joxe dix gëléem booleeg boisson yi mu àndal ñu rend ñëpp lekk naan ba finalement réveillon bi bëgguñu woon sax mu jeex euh, troisième jour bi mu ne yow Shaybatu joxel Shayba joxe ñetti gël euh, fukki moom it euh, après Uqbatu joxel quatrième jour bi mu joxe mu ñëw nag ci abbas mi nga xam ne mooy bàyyi yonent bi di rakk baayam da ko joxel téere yi nee gëm na mais pour rawale rawale boppam moo tax joxe na fukki gëléem après paye ñu kii noonu daal lañ koy def ba juróom-ñeenteelu fan bi ci lañ agsi ci badar ñu seen nag yonent bi yonent bi seen kii ñu naan mais kii lu Abu Sufyaan kii lu Abu Sufyaan information bi leen dikkal mooy Abu Sufyaan teggi na dem waaw ñii ñan la ñu ne waa Màkkaa ngi nii ñu ne kon nañ ñibbi ñu ne ëpp naa def kon waa Màkka yëpp ñun comme ñun dañ génnoon rek pour dabu ji kii waa Màkka te faf ñu leen rëcc waa Màkkaa ngi nii am ñu wax nag ci biir mbooloo mi ma bi ñuy wëri ji waa Màkka koppar yee taxoon commerce bu bari bi lañu soxla woon comme ñooñu rëcc na lu ñu defati fii léegi nag ci la yàlla yónni euh, Jibril ne ko nee leen nañu xeex dinañu jële ci ñii lu ëpp lañu waroon jële ci ñi li ñu doon daw ñaar rek a fi am pertement du ci am mooy ngeen gañe ñiy jël butin bi mbaa ngeen dee dem àjjana te àjjana moo dàq butin am nag ñuy euh, day naagal ci mbooloo mi naan vraiment ñun xeex taxu ñu woon a jug nangam nangam léegi nag yonent bi euh, encouragé leen ba ñu nangoo xeex bi ñu dégg ma leen ak yéefar yi vraiment ñu gis ne yéefar yi leen ëpp ndax yonent bi mu laajtee ñaata ñaata gëléem la yéefar yi rendi par jour dañ ne ko entre neuf et dix mu ne kon ci estimation neuf cent personnes la ñuy doon wala mille te noonu la demee ndax gëlëm téeméeri nit mën nañ koo lekk ba suuf kon bu dee par dix gëlëm la ñuy ah, am nañ mille wala bu dee neuf la am nañ neuf cent noonu la ko waxee noonu la demee itam léegi nag jullit yi trois cent treize lañ ñu janook ñoom vraiment lu daloon taaluuta ak jaaluuta l'histoire se répète looloo xewaat ñu naan nañ dem ñibbi am ñu nekke ci gannaaw naan nañ dem ñibbi mais nag yàlla dogal na naafeq yi bokkuñu ci ndax xeex bi kenn ootew ko maanaam yonent bi dafa ne ku ma mën a gunge rek ñëkk a mën a gunge rek ñoo tolloog noonu mais naafeq yi ñëwuñu te boobu itam naafeq yi bareeguñu ndax boobu dara xewagul léegi moo tax 313 yooyu li ñuy néew néew yonent bi nag pour bëggoon leen encourager ne leen boo leen xeex ak yi lu ci waaye jël rek yaa ko moom. lu ci waaye dapp rek ba téel ko sa bopp yaa ko moom léegi nag bi ñu commencé xeex xam nga xale yi ñooy amee mobilité xale yooyu nag ñoo doon topp yéefar yi di leen dàq di leen dóor après ku ci rey ñu jël nag sa butin ndax koo rey rek yaa yaay moom gëléem gi yaay moom fas wi teg wi argent de poche bi li muy boo ko estimer yëpp mën na mat un million yonent bi ne ku ci rey nit yaa moom li mu yore léegi nag xale yi di ray di jël di rey di jël di rey bi xeex bi jeexee euh, léegi kenn ku ne jël li mu li mu moom mais ñi nekkoon ci ci ci ci régiment bi yore woon drapo bi ay paa lañ doon ñoom paa yi amuñu boobu mobilité bi xeex bi tasee nag booy yëpp jël alal ji paa yooyu yoruñu dara paa ñoo ñëw ci ñoom nag naan ashrikuna mais séddale ñu nag ñu ne non yonent bi moo ne lu nit rey rek yaa ko moom moo ne dëgg la bi moo ko wax waaye ñu ne itam bu ñu toogul woon ci ci gannaaw di leen taxawu doo leen am lii taw li nag ne kur euh, ndax euh, war nañ sedd ñi wala waruñu sedd ñi rek Jibril wàcc na bett ngeen ma de yàlla nee na bett ngeen ko torop li ngeen am ci yiwu am ko ci lislaam am ka ci mbaax am ko ci ci bi ku leen fekk fii ngeen di séddoo ñaar ak fukki dërëm ak fukki junni yi maa moom lii kii naan maa moom lii mais est ce que yëg ngeen teraanga yàlla looloo tax yàlla tudde lii butin bi ne leen mais yéen même butin bi yéen waru leen ko woon a jël bu dul woon coobaree yàlla sax ci law lawxul mahfuz ne xeetu yent yàlla muhammad dinaa daganal ci ñoom butin kon dinaa leen duma duma yu ndax alal ji da ko waroon a dajale yëpp ñu lakk ko mu jeex wala moins sax ngeen waroon a dajale alal yëpp dem jox ko yonent bi waaye maa jël lii maa jël lii lii rafet na xoolal suñu diine ji tey hmm? butin bi defe naa moo moo tax na diine ji hmm? ku ci gàmmu sax yaa ngi xool enveloppe yuñ la indil wala yuñ la indil loolu moom la yàlla tudde saar bi dénoncé ci nag wa maanaam maanaam tagg ci nag jullit ci keroog nag bi biñ dajee yàlla indi na fa ay malaayika junni ci régiment bu njëkk bi après ñaari junni ci régiment ñaareel bi yeneen ñaari junni muy cinq mille après xeex bi gaaw lool téere na diggante di neuf heures ba onze heures xeex bi jeex na yëfar yi ñuy dee dee ñu ngi ciy jàpp jàppale léegi prisonniers d'otages euh, yi maanaam prisonniers de guerre yi ñu jàpp ci soixante-dix personnes ñu yóbbu leen biñ leen yóbboo yonent bi ne leen ku ci jot sa bopp delluwaat ñoom it ñu joxewaat xaalis Abbas moomu ci la bokk ndax financé na fële ba pare mais moom financé waat na fii pour jote boppam ginnaaw gi nag ñu bari dañoo gëm ndax xam ne diine ji dëkk la loolu daal ci ay xew-xew xew-xew Badar ak ñi mu ñàkk logique ni nga xamee ne yàlla noonu la doon nettalee ci Ali Imran xaswatu Uhud noonu la nettalee ci bii itam xaswatu Badr yàlla na ne yasaluunaka dinañ la laaj yow yant yàlla Muhammad mooy mag ñi doon werante ak xale yi ci butin bi ñoo ko moom ñi neen ñoo ko moom yàlla na la gënoon rafet est-ce que jël jëloon butin bi yëpp jox ko yonent bi gënul woon yasaluunaka ñu ngi lay laaj anil anfal ci butin bi mooy alal ji kul nee leen al anfalu alal ji yëpp lillahi yàllaa ko tout war rasul ak yonent mooy cëru yàlla kon yonent bi moo ko moom ma ne jullit yi fattaqullaha ragal leen yàlla yéen a ngi doog a gàddaay ñëw yàlla indi leen teraanga ji amul loo leen def commencé xëccoo teel na ragal leen yàlla waslixu ngeen rafetal zaata baynikum seen diggante mag ñekk xale yi jaaduwul ñuy xeex ndax yéen a bokk benn cause boo xam ne mooy kalimatullah yel ulya yëkkati l'islam kon toog toog fii di séddoo butin teel na wa atiullaha toppaleen yàlla wa rasula ak yonentam in kuntum dem nekk ngeen muminina di gëm yàlla yàlla profité à l'occurrence mel ni dañ ko laaj nan lan mooy julit nan la jullit war a mel mu julit jullit de yi ma xam man yàlla yàlla nee na jullit yi ma xam duñ xëccoo nekk fii mag ñu tol ni yéen di xëccoo xaalis bii innamal muminun dëgg dëgg jullit cent pour cent lazina mooy ñi nga xam ne ida zukira allahu buñ déggee turu yàlla rek wajilat dafay tiit qulubuhum seen xol ni nga xamee ni bo bëggee ni dëgg buñ ko tudde rek sa fit rëcc yàlla nee na jullit piir bu ne allah rek yaramam fi fi tax loolu niroo naag xëccoo xaaj jullit piir wa iza tuliyat bu ñu jàngee ba ñu dégg alayhim ci ñoom ayatuhu aaya yàlla zaadathum loolu da leen yokk imaanan da leen yokk imaanan gën a gëm yàlla axa kay yow mi dégg tafsir bi xanaa am na lu mu yokk ci yow ko koy jullit wa te ñoom julit piir yi yatawakkalun dañuy wéeru ala rabbihim ci seen borom kon duñu xëccoo ay butin lazina mooy ñi nga xam ne yuqiimuuna dañuy taxawal salaata juli juróom di ko def ci waxtu wa wa te lépp mimma razaqnaahum li ma leen wërsëgal yunfiquuna dañ ciy dépensé ulaayika ñii daal humul muminuun ñooy julit yi xaqan cent pour cent kon nit léeg-léeg nga dégg ko man jullit laa axan jullit laa cent pour cent sa bopp ngay ndax yàlla ay critère la teg lahum ñi mel noonu nag am nañu darajaatin ay cër ay daraja dara rabbihim ci seen borom ca àjjana wa maxfiratun dinaa leen fa dencal njéggal wa risqun ak wërsëg karimun bu rée bu rafet rafet rafet bu bu reere réeréeréer kon ndeke wërsëg jarul xëccoo fii risqun karim léegi nag yonent bi yow gis nga trois cent 313 yi ànd ak ñëw yow ñëpp kontaan nañu ci xeex bi de man mii gis xool yi maa ngi yëg ne am na ñuy respect am na ñuy xultu kama axrajaka comme ni mu la génnee ko sa borom min baytika ci sa néeg bil xaq ci dëgg pour nga xeexi ji ci yoonu yàlla maa ngi lay yëgal ne wa inna fariqan am na kuréel minal muminin ci jullit yi la kaarihuuna dañoo bañ loolu dañ ko sib naan chut comme Abu Sufyaan dem na kay nañ dem rek ñibbi ñooñu nag ngay gis ñuy jaatiloo na ko ñooy weranteeg yow fil xaq ci xeex bi ci dëgg gi min baadi ma tabayyana la gannaaw bi la leeree ba mu leen leeree ne abu abu jahli na ngi Euh, waa Quraysh campé ñu ngi leen di seen de loin ñu xam ne xeex bi mënu la mënatuñ koo daw léegi nag ñu ñu ngi ci biir mbooloo mi mais ñu ñu ngi mel ni nag yu ñu jiital jëmaleen Busiri abattoir <laughs> nag nag buñ jëmale Busiri dina kontaan ah ka annamaa yu saako na dafa mel ni dañ leen rëgët daal ilal mawti jëmaleen ci dee te waxum ñoom yanzuroo na ñuy xool dee gi dafa mel ni dañu découragé te ñu ngi ci biir kat yàlla moo mën a wax hmm? te ñi muy waxal kat ay jullit piir la mais mu ne ñu ngi ci biir mbooloo mi wa fàttalikul rek iz ya'idukumullahu bi bila yàlla diggee ihda taifatayni ñaari bien yi ñaari yow yow ñaari ñaari bien rek nga am mooy soit que nga nga jot Abu Sufyan jël butin bi dem ñibbi lool du teranga mbaa nga dajeeg waa Makka Makka duma leen jël butin bi dem ñibbi ñaari yooyu benn faw faw benn ci am yonent bi lool la ko yàlla révélé ne ko moo xam ayir bi la wala nafiir bi boo ci am doo perte mais am na ñun ne ci biir mbooloo mi ñu ngi découragé jàpp ne ñoom benn bi rek moo moo ndax Abu Sufyaan comme d'abord ñemewul ñaareel bi mooy comme commerçant la xam nga ñi muy àndal du ñu bari kon dinañ neexal lijjanti seen liquide dinañ dinañ neexal liquide après nga jël alal jëm ñibbi xam nga bul fàtte ne weer yii ci gannaaw. Abdullah ibn Jahsh noonu la def eh, caravane ba mu dab ñeenti nit la fa fekk ñu rey kenn ki ñetti ña daw ñu jël gileem yëpp andi loolu la ñu fekkewul lool nag ñoo bëgg am li mais biñ nee leen tii rëcc na ñu découragé yàlla ne wa fàttalikul rek is yaidukum ba la digee ba la promettre yàlla ixda taifatayni ñaari ci ñaari kuréel yi mooy iir beeg nafir bi annaha ne ñaari par force la ko yaaka moom yéen ko moom wa tawadduuna mais yëg naa ci jullit yi am na ñoo xam ne dañoo bëggoon an na xayra daati shawkati bi amul daal coono takuur lakum nañ dajeeg boobu rek shawkatu mooy mooy mooy ndëg xam nga comme guerre dafay am dóorante dóor jaasi dóor bu gaañ la donte yaay gaañe sax waaye gaañu ko mais xam nga fekk ay commerçant rek nga daxaleen ñu ëpp ñu daw nga jël ko daw loolu dafa yóbbu mu ne am na ci julit ñoo xam ne sawaruñu ci dajeg euh, ir maanaam nafir bi ñoom ir bi rek lañ bëgg mooy bëgguñu komba bi yàlla nee na bu combat amul nan lañ leen respecté hmm? moo tax mu ne annaha lakum wa tawadduuna bëgg na anna ghayra zaati shawkati bi nga xam ne daal amul ndég amul amul xeex amul combat takunu lakum moom ngeen di am waaye fekk na yàlla bi ngeen bëgg lool moom bëgg na beneen wa yuridullahu yàlla dafa nam ma an yu xeq mu jaare fi dëggal alxaq dëgg ba faw looloo tax ti xare bi ñu tudde ko yowmul furqaan bésu dëgg gi ndax keroog lépp nag leer li waaj naan bés ngi ñëw lépp dina leer abu sufya abu jahlin mi gënoon a sonal nit ñi keroog la de moo tax ci histoire keroog la atteindre bu doon éteindre bu doon lamp la keroog la fay wa yuridu llahu an yuxiqa alxaqa bi kalimaat yi ci baatam gi wa yaqtaa ci lay dog itam daabiral kaafiriin ndigu yéefari dama bëgg a éliminer mu jeex bokk parce que wax na wax na dëgg yonent bi toog na treize ans di ko muñ méttiwul muy dem ñu toppaat keneen dañ koy rey trop c'est trop moo tax yàlla éliminer leen benn yoon yàlla nee na maa bëgg loolu li yu xeqay pour ma dëggal alxaq dëgg ba addunay tukka tukki jo xam ne lislaamay dëgg wayu ci la ma yàqa albaatila neen na muñ gi yàgg na walaw kër ya doonte sib na ko sax mujri mën a tooñkat yi tey laa leen éliminer looloo tax kon ñi nekk ci say partisan bëgg a xe bañ di daw combat bi yàlla leen dugal ànd ak ñoom euh, yow yonent bi yonent bi vey bi nag dafa toog ne ah yàlla comme combat bi mënul ñàkk maa ngi lay di maa ngi lay ñaan yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghis loolu la doon yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghis di ñaan di ñaan ba kaalam wadd a ne ko doy na yàlla du toroxal yàlla ne fàttalikul rek is keroog bi nga xam ne tastaghisuuna yéen a ngi xettaliku rabbakum seen borom pour rek yàlla bañ leen teg gàcce fastajaaba lakum mu wuyu leen xam nga nan la leen uyoo arrêté bi mooy lii an nii man kat yàlla nangu naa ñaan gi léegi mu mit dukum dinaa leen envoyé renfort bi alfin ci junni minal malaayikati ci malaaka murdifiina yoo xam ne dañoo sësaloo def ay rangé toppandoo ma ne ku xam histoire ni yàlla daan alagee soxla na mille malaaka pour renfort kenn rek bu dóoroon foofu adduna bi tukki renfort mille malaaka yi wa maa ja'alahu llahu yàlla defu ko illaa bushra lulul bégal la rek waaye bu doon rey leen rek jarul lool illaa bushra lakum illaa bushra lulul bégal leen wali tatma inna ak dalal bihi ci moom qulubukum seen xol yi mais même malaaka yooyu yoruñu victoire bi wa man nasru déet ndimbal illa min indillah loolu ci loxo yàlla min indillah inna allaha yàlla azizu aji tedd la xakimu aji xereñ la maa nangu loolu is fàttalikul rek yow yonent bi bi nga nekkee ci xare bi yu xasiikum ngeen dem xare bi bay bi dañoo ragal dañu bi ñu ragalee di lox waaw bëgg a lox damay laaj ndax ànd na ak suba xeex gañe hmm? yàlla xam ne jullit yi ragal nañu te ñu ngi lox boobu ba tey ñu ngi kii yàlla sol leen ñoom ñëpp gëmmentu ñu commencé jayaaxu di nelaw téere yi di laaj na ki ragal nan la mën a nelaw ndekete yàlla moo ko def ci ñoom effectivement dañoo dem ba minuit rek une heure du matin ñoom ñëpp commencé jayaaxu te xamuñu lu leen teg teg lool ñoom ñëpp nag ñu teg seeni jaase wàcc seeni euh, fas tëdd nelaw yàlla nee na parce que li nar a xew fay bi faw ngeen nelaw daal ah yow mi am final suba sa kër ngay fanaan Hmm? final mondial hmm? final mondial boo ko amee si kër ngay fanaan déedéet dañ lay regroupé bu ko defee nga noppalu boo noppaloo bu guddi gi ba guddi gi nga noppalu boo xëyee nga amee doole yàlla nee na maa maa leen sol yéen ñëpp nelaw pour ngeen noppalu ci guddi gi vraiment pour demee ngeen mën a jekkali ñële. alhamdulilah is fàttalikul rek. ñoo siikum bi mu leen muuree an noaasu gëmmentu yéen ñëpp ngeen commencé gëmmentu te saxaaba yi ñoo ko seedeel seen bopp dañoo jekki-jekki rek kenn ku ne boo téyee sa jaase bu daanu maa def loolu yux siikum noaasu euh, euh, noaasa amanatan ma def ko sécurité ndax wax dëgg yàlla ku tiit du nelaw min bu jógee ci moom wayu nazulu maa wàcc aleykum ci yéen bi ñu demee ba fajar jot xanaa kon nelaw nañ guddi yëpp bi ñu yeewoo dañ waroon a jàpp amuñu nag luñ jàppee bi ci des mooy ci désert lañ taxaw te désert dafay nooy yàlla xam ne ay fas ak ay kii bu ñu bëggee def va et ak ay tànku ci biir désert bu ñu tegee seen tànk fu mu jëm biñ demee ba cinq du matin ci laa taw taw ba foofu luur laa suufu joor joor bi bu tawee nu muy def da naan ba mu wow mu kekke yàlla ne maa leen lijjantil terrain bi noonu ñu xëy ci fajar gi Euh, ndox doon wër ndox mu ñu sangoo ñii di wër ndox mu ñu jàppoo mu tawal ba ñoom ñëpp ci lañ sangu naan ba man di ndox mu neex yàlla indi piix neex a neex a neex yàlla dëgëral terrain bi pour bu ñu xëyee ñu man di def ay vaye bi maa def loolu ñoom saxaaba yi dañ jàppoon ne loolu naturel la mais bi yàlla wàccee ay saar bii lañuy ñuy soog a xam détail yëpp is yox seeku mun na asu nuasa bi leen yàlla indile indilee gëmmentu amanatan muy sécurité min huwa yunazzilu moo wàcc aleykum ci yéen mina sama ci asamaan maa ndox li yutahhirakum bihi pour laabal leen ci rek mu ne déedéet wa yuzhiba ak demal ankum ci yoon ric sa seytaan liggéeyu seytaane parce que ndey ndekete ci guddi gi yëpp seytaane jox jox na leen ay mauvaise pensée ñu naan su def nañ erreur def nañ erreur fii waruñu fi woon ñëw di xultu noonu ndekete loolu liggéeyu seetaane la mais bi taw bi ñëwee rek léegi nag da koo raxas ba mu set ku ne xam na ne taw day dindi stress hmm? yàlla ne maa def loolu wala yarbita ak dëgëral ala qulubikum seeni xol ba ngeen am nag jàpp confiance mais bu mujj bi mooy wali thabita bihil aqdam seen tànk yi mën a dëgër ndax euh, suuf si dafa nooyoon ndekete taw bi yii yëpp moo ko dox yàlla moo man is fàttalikul ba tey combat bi jeex na de waaye yàlla mu ngi dawalaat filmu combat bi i is yuxe bi yàlla bi yàlla wax yoo ko ilal malaikati ndekete lii moo xew ci champ de bataille bi mais ndekete asamaan yi juróom-ñaari itam am na lu fa xew yàlla fa oote foofu euh, réunion d'urgence malaaka yi jibril ñëw ak malaaka yi yàlla ne leen yéen dama leen bëgg a yabal ngeen benn régiment dem dimbalil ma sama soppe ba demain à dix heures ci xeex bi ngeen détruiral ma yéefar yi réunion réunion na am na foofu id yuuxa fàttalikul bi nga xamee ne wax yu na rabbuka sa borom ilal malaayikati ci malaaka yi ne leen ni man yàlla kat maakum dinaa ànd ak yéen suba dama leen di yónni léegi dem leen màkkatal mukarrama fekk fa yonent yàlla muhammad ca badar fa sabbitu ngeen dëgëral lazina amanu jullit yi na ngeen leen dugal dëgëral léegi yéen malaaka yi amu leen problème sa ulqi dinaa sànni fi qulubi lazina kafaru ci xolub ñi nga xam ne dañoo weddi ar rox ba tiit dama wax ne ki nga war a xeexal mu tiit bay lox gañe ko cinquante pour cent man yàlla li may participer ci xeex xeex bi mooy comme man may contrôler xol yi dinaa roof ci seen xol yëpp tiitaange ba ñuy karkari léegi nag yéen malaaka yi ñëw leen nag jekkali fanaa xeex boobu yomb na sa bu yéen nag boo leen demee sa ulqi fi qulubi alladina kafaru ru'b yéen malaaka yi seen parti mooy fadribu dóor leen malaaka yi ne yàlla waaw ñun mësuñoo xeex mësoo ñu yëbal ci xeex léegi nu ñuy xeex ndax ñoom dëkk yi daan alak dañuy yuuxu rek wala ñu dóor foofu mukki yàlla ne leen nag ñii waxuma leen ngeen alak ñooñu mais na ngeen xeex ak ñoom ñu ne luy xeex malaaka yorul jaasi ay laafam rek la yor yàlla ne nit ko boo leen dëgmalee yéefar yi seen poignée yi ngeen di pois poignée loxo bi boo ko dóoree rek ñuy wax ne ku yor jaasi këmpa jaasi ñu dóor sa poignée bi nu muy def jaasi bi du wadd yàlla ne boobu mooy bu njëkk bi moo tax ñuy def euh, armation xam nañ loolu loxo bi nga war a dóoree bu ñu la fa doore ba loxo bi yàqu di nga ti beneen bu ñaareel bi yàlla ne dee leen dóor loos yi koo dóor loosam nu muy def day daanu ah. boo déggoo ku ku ñaan diw dañ ko assommé fu ñu dóor loos wa yàlla ne ñaar yi rek ngeen def xoolal déggu civilisé la ndax koo dóor kuu bi xam nga day dee ndax <laughs> dund foofu la de mais day dee te deret du génn dara déggu civilisé lay doon. léegi boo dóoree loxo bi jël nga jaaseem boo dóoree coup bi euh, rey <laughs> yàlla jàngal malaaka yi fadribu na ngeen dóor fawqal aadaaqi ci kaw loos yi wadribu ngeen dóor minhum ci ñoom kulla banaanin ci bépp baaraam bu ko defee mu bàyyi jaasi malaaka yi wàcci daalika yàlla neen renfort boobu maa def bi annahum ngir ñoom maa def loolu yéefari ndax saaqu dañoo wuuteeg allah yàlla wa rasula ak yonentam muy abu jahlin ba bëgg a xaarek yonent bi waaye wa man yushaqiqi képp kuy wuuteeg allah wa rasulahu ba addunay tukki fa inna allaha na xam ne yàlla shadiid iqaab aji tar ji mbugal la daalikum maa def loolu ñu wàcc ñu dóor leen ñu dee ñoom yéefar yi yàlla ne maa def loolu zaalikum loolu laa wax maa ko def fa zuuquhu mos leen loolu euh, euh, euh, maanaam le temps que ñu ngeen dajeeg man yow man fa zuuquhu mos leen duma yooyu wa anna lil kafirina bés bu ñu demee nag ba ñëw fekkee si ma àllaaxira ñeel na yéefar yi azaaba naar mbugalum safara liñ leen teg ci combat bi rek metti na yàlla leen non avant premier la rek maa ko def mais buñ ma fekk see fële ba ma boolee ne nag zabaniya dinañ xam ne jaaduwul yéefar yi yéen yéen xanaa jullit yi kontaan ngeen nag léegi nag yéen ku ñu defal renfort yu toll nii ma def réunion nocturne yabal malaaka yi ñoom pare nañ man it yàlla ko euh, participer naa ci guerre bi mooy dinaa leen intimider tiital leen waaye yéen jullit yi kon kon que de forme rek ngeen xeexe yéen defu leen dara léegi nag comme defu leen dara te may naa leen sax sécurité veille bi nelaw ngeen ba kii taw naa so sangu ngeen ba kii naan ngeen lépp ah mais nag léegi nag dem na xeexe jë yaa ayyuha alladina amanu ida laqitum boo leen dajeek lazina kafaru ñi weddi yàlla zaxfan ci xare léegi nag rafetul ngeen daw nag jaadu na biñ defal lii yëpp nga seen yéefar yi moom mu ngi lox ba moom day sagu rek di ñëw mais nekkatu fi sax léegi yow nga gisaat kat yi daw rafet na léegi nag bu leen dawati nag ida laqitum boo leen dajeek lazina kafaru yéefar yi zaxfan ci mbooloo wala falaatu walluhum bu leen leen wanati al adbaar seen i gannaaw xam nga nit moom ku wane gannaawam rek mooy mu ngay daw léegi ñoom jullit yi ñu commencé excu indi excuse na non li ñu jaaxal mooy ñoom dañ bari ndax vraiment mille lañu te ñun trois cent treize lañ kon ëpp nañu deux fois de plus yàlla ne waaw yéen bu fekkee ay jullit yéen yàlla ngeen àndal te ñoom ànduñu kenn mais waru leen daw mu ne euh, waman yu wallihim képp ku leen wan nag yow ma isin duburahu sa gannaaw Eh, dinaa la duma duma yu metti ndax loolu défaillance la nag ñu ne ñëpp mu ne ah illaa mutaharrifan lu dul koo xam ne dafa dafa puus maanaam dafa ëlbatiku li qitaalin ci xeex bi maanaam li ñuy wax ne il faut replier pour mieux sauter wala il faut reculer reculer pour mieux sauter xam nga nit di nga song ay yéefar nga jekki-jekki ñu sam la nga jekki-jekki rek daw daw reculer wu maanaam maanaam replier wu dem ci jullit ba yàgga jaaraat beneen côté ñëwaat dal seen kaw kooku dawul moo tax mu ne illaa mutaharrifan lu dul aju walbatiku jëm li qitaalin ci beneen xare aw mutahayyizan wala koo xam ne dafay dem ilaa fi atin jëm ci jullit yi ndax fi jullit yi ëppee nga demee ci côté boobu mooy tane waaye bu dul ñaar yi daal maanaam nga xam ne da ngay euh, dellu gannaaw pour mieux sauter wala nga dema dem ba xam ne yéefar yi sam nañ laak doole nga replier wu delluwaat ci jullit yi bu dul loolu waaye ne ba xër ñett daw ñu lay wër nga dem ba génn xare ba daw loolu mu jël ab oxut loolu yàlla ne lool ku ga def du ma ko pardonné ku def loolu faqat ba a dem nga bi xadabin ak mer min allahi ci yàlla ndax bu ñëpp defoon loolu défiance am euh, min allahi wa mawaahu tàppuwaayam nam la wa biisal masir muj gu ñaaw la doon na muj gu ñaaw gis nga défiance ci xare bokk na ci kabaa'ir ak tawalli yawma zahfi waaw mu mel ni jullit yi dañ nekk waaw ñii ak ni ñu ëppee nga ne buñ daw yàlla ne falam taqtuluhum reyoo leen leen man maay xeex walakin allaha yàlla qatalahum ñoo leen rey wax nañ dëgg ndax euh, mag ñi wax nañ ne ñoom saxaaba yi dañuy dégmal yéefar dem ba war ko dóor rek ñu jege gis mu daan te duñ gis kenn koo dóor ci la xam ne am na ñeneen ñuy xeex ak ñoom kon yàlla nee na yéen yéen rafet rafet leen ci xeex bi rek waaye yéen xarew leen yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla wàcc ko nekk wa maa ramayta id ramayta yow it walakin allaha rami gis nga lii mu ngi xew ci Uhud Uhud nee naa la ca gannaaw bañ bi koy bi koy yéefar yi gawee ba ba yóbbu ko ci pax mi après di ko sànni ay fett yonent bi daf dafa jekki-jekki dañ jekki-jekki ubay naan ayna Muhammad ubay ibnu xalaf mooy ki doon sonal Bilal ibnu Rabah ci ay duma ayna Muhammad ayna Muhammad euh, ñu ne mu ngi nii mu ngi bàyyi leen ba ma rey ko benn yoon yonent bi nag dégg lool ree xoolal foofu foofu kan moo fa tala rey ci jamono jooj ree ne ka ban bal ana aqtuluka man kay maa lay rey ci la jël nag Saad ibn Abi Waqaas ne ko jox ma benn fett ne bismillah rek sànni ko te mu ci pax mi de yàlla mel ni nag moo gunge pax bi di ko gunge maanaam fett bi moo gunge fett bi di ko gunge góor gi mu ngi mu ngi sol euh, maanaam koŋ yëree koŋ kaw ba suuf kooku fan la ko fett mën a jaare mais ci côté cou bi dafa am benn espace quelque centimètres bu fa dal bu fa des moom la yàlla orienté fitt bi ba mu dal foofu xosi ko looloo ko rek yàlla nag ne yonent bi ndax yow yaa sànni wala ma sànni wa maa ramayta jamoo is ramayta ba nga sànne walakin waaye allahu laa laa wax rama moo sànni kooku ba jam ko maa def loolu wali yubli ak ma nattoo muuminiina minhu ci moom ñoom balaa an xasanan natt bu rafet a rafet nag muy ngañaay googu inna allaha yàlla samiun aji dégg la li xewoon ci combat bi yëpp alimun aji xam la ko dalikum looloo xewoon ma ne wa anna allaha yàlla laa wax ba addunay tukki mu waxinu dafay doyadal kaydal kéefirina pexem yéefar yi ndax abu jahlin est ce que lii la bëggoon dane woon nañu dem détruire benn Muhammad ak waa këram ba après après lii duñ ñu yabati mais moom lañ mujj détruire Abu Sufyaan Abu Jahlin laa bëgg a wax bi ñu demee nag ba war a xare euh, maanaam muy muy vendredi matin vendredi matin dix-septième jour ci euh, Ramadan moo taxaw nag sept heures du matin huit heures du matin naan yaa ma'shara Quraysh di wax di tëb mu ngi yéeg ci benn gélém gu weex tal ak sewaay bi nag di wax di tëb ñu ne mu tey la dëgg di feeñ ak neen Muhammad yàgg nañu sonal fu nekk jaar nañ fa pour rey ko mu tiñu léegi nag tey jii nañu wax suñu borom bi nga xam ne yow yàlla ñun ñooy ñoo la yoral sa kaaba gi ñooy ñoo lay dalal say gan ñooy lii ñooy lii léegi nag bés ni tey dañ bëgg nga àtte ñu définitivement ak Muhammad mi la mi ñu sonal yàlla ne mën ngeen di demander ndimbal dalu leen ci de in bu dee da ngeen di sàkkoo ndimbal ah léegi faqat jaakum dikk na leen alfatxu ndimbal abu jahlin dafa wax ne yàlla ñoog Muhammad koo ci gën a bëgg na nga ko wan wane tey ndax boobu ba tey ambiguïté bi bari na ñun xamuñu ndax ñoo lay jaamu wala moom moo lay jaamu dëgg-dëgg léegi comme moom tas na suñu mbokk tas suñu dëkk dëkk bi nga xam ne yaa ko gënal ci dëkk yëpp def na lii def na lii def na lii atte ñu tey est ce que xam nga nit ñi dañ lay tooñ ba pare ne dañ lay jiitu ci yàlla pour kalaame loolu la abu jahlin def ndeysaan yàlla nag tontu ko nekk in tastaftihu bu dee da ngeen di sàkku eh, ubbeeku ci ndimbal faqad jaakum dikkal na leen tey tey tey ji alfatxu wa in tantahu boo leen tuuboon nag jéggalu fa wa loolu sax xayrun lakum moo gën ci yéen duma leen duma waaye wa in taudu boo leen delloo ci xeex bi ne da ngeen di xeex ak Muhammad naud ma dellu ci duma leen rek walan tuxniya te du leen jariñ ankum ci yéen fi atukum seen kuréel gi ak li muy bari bari xanaa lekk yàpp rek la leen jariñ du leen jariñ sey an dara waraw kasurat lu mu bari bari bari ndax wax dëgg yàlla mag ñu toll noonu war a xare di lijjanti yàpp ñu lekk pour wi mooy talu leen dara waraw kasurat wa anna allaha te yàlla ma al muminina mu ngi ànd ak julliti wane na ko nag hada huwa tawfiq min indillah wassalaamu aleykum